li ñu war a war naa la ngoog li ñu war a fonk ci xol a ngoog kon ci ñaareel ñi nga xam ne dañuy mel ne dañuy woyof alquran ndax dañu dégg jëm di wax ne alquran digal nit ñi lii tere leen lii doo nga tax mu jóg amul leneen njëriñ mu ngi mel ne rek code de la route boo ko jàngoon nga dem takk ko wala nga baxal ko naan te lam la wax defloo ko du la tee def accident du la tee def ay infraction ci circulation bi mu daal di mel ne lépp luy barke kon lépp lu ñuy luy war naan yàlla ak lépp luy xam màggu suñu borom bi ak lépp luy fooraayam bi julli nga ko teg fee alxuraan mu daal di mel ni rek loi boo xam ne dafa mel ni yeneen loi yi loolu lu rëy rëy rëy da tabu diis a diis a diis la te mën na sabab lu nekk ci doomu aadama te loolu lépp ñàkk xam rek a koy indi alxuraan saafara na biir jikko sallallahu alayhi wa sallam dañ daf daan toog ñu di ko indil xale yu ndaw yi mu di leen ñaanal ci bopp te alxuraan lay jàng di ko tax li ci seen bopp muy barke yonent bi ak barke alxuraan képp koo xam ne woyofal nga alxuraan ba jàpp ne jëriñ amul leneen njëriñ li muy jëriñ day woyofal nga lu yàlla màggal ndax alxuraan wax yàlla suñu borom tabaraka wa taala alxuraan lenn ci meloom la ndax ku nekk xam na ne doomu aadama mënu la def lu mel ne alxuraan pour mbiri alxuraan sax ñu di wax dafay buñ ci duggee mën na nekkaat beneen conférence boo xam ne mën nañ ci wax ñeenti fan ci kéemaane alquran rek ak ni mu yéeme ni mu gëne ak li nga xam ne ndax wax yàlla tax na duñ ko waaye jële la naa ne alquran barkeem rëy na waaye ki koy jàng rek barkeem rëy na lool jëm jaam bu nekk te boo dee jullit te sa ngëm mat war nga fas ne alquran am na njëriñ boo jàppoon jàng koo am na njëriñ boo jaaxlee jàng koo am na njëriñ ku fi jóg itam jàngal ko ko am na njëriñ lool barkeelu lu si fekkoon la ku nekk xam na ne ci sharia ak l'islam ñi nga xam ne ñoom lañ reconnaître seen i ngir ñi si gën a siiw ñoom ñett lañ ci muy Abu Bakar muy Seydina ma Imam Malik ak Shafi ak Abu Hanifa Ahmadu Hanbal ñoom ñëpp kenn ku ci nekk barkeelu def nga ko Seydina Saafi bi mu géntee gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko na nga wax Ahmadu ibn Hanbal ñoom ñaar ñëpp ci borom ñeenti ngir ñi la ñu bokk na nga wax Ahmadu Hanbal ne ko daañu ko natt natt bu rëy bu muñee danaa ko yëkkati drapeau boo xam ne dootu daanu ba saa taxaw Seydina Shafii yebal taaliboon ne ko maa ngi lay yónni ci Ahmad ibn Hanbal boo demee nga wax ko lii nga xam ne gént naa gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ma ko ba taalibe bi demee wax Seydina Ahmad ibn Hanbal ne ko limaamu Shafii de moom a yónni ci yow nee na gént na yonente bi sallallahu alayhi wasallam yóbbante ko ci yow ne ko nee na daañu la natt natt bu rëy boo xam ne boo muñee yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam ne dama la yëkkati drapeau boo xam ne du daanu ba dafa di taxaw Seydina Ahmad ibn Hanbal dafa dëkk ba summi simis bi nga xam ne moo tegoon ci yaramam jox ko waa jooju nga xam ne moom la Shaafi yi yónni woon ba waaja delloo ca Shaafi yi ne ko Ahmadu day dégg na ci loolu dëggal na la ba mu ba mii moo ko ko jox limaamu Shaafi yi daal di ne ko wax dëgg yàlla te mii mu la jox nga di ko barkeeloo day bëgguma koo nangu di la ko xañ ndax barke bu toll noonu te yow yow laa yónni woon la dox mbir mi waaye na nga dem tooyal ko ci ndox ba mu tooy nga indil ma ko ba mu ko tooyalee ci ndox ba mu tooy mu indi ko def koo sol ba ndox ma newoon ci ci turki ba takk ci yaramam mu toog ko suñu jox ko ko kon ku nekk xam na ne barkeelu ku ko xeet da nga xamul dara amul nag jëf jëf ju baax lu mu tuuti tuuti tuuti ku ko xeet xeet nga xal ci dàgg ndax mën naa sabab ak texe dañuy wax ne jëf bu ca ju baax bu ca xeet dara ndax xamul fu suñu borom nëbb ak texeem te mu ngi si jëf yi jëf ju bon ci la suñu borom nëbb texee bi xamul si jan jëf la kon bu juree jëg nit itam fu suñu borom gërëm ci nit ñi la nekk xamuloo kan la ci kon bu ci xeet kenn jëpp jëf joo jëf donte da ngaa toog ba ne astaxfirullah sax am na njëriñ jëlee naa tuyaaba jël la ciy bindal waaye jëf ji muy jëf ci sa xol te yëguloo ko ndax jëf boo tuddee tur yàlla mu mel ne rek ku yor jaas yi fiim garab di ca cor wax woo xamee ne tudd gi bari na dana dagg garab bi naka noonu ayibu xol noonu la ci tudd yàlla di def di ko nàmm rek lu mu tuut tuuti kon ëpp na xeet te nit ki war na fu mu toll di ko bari waaw ne war naa xol day tawat ni yaram di tawate tawate xol nag mu jëm moo di texee di ko doppe ko la qadarallahu wala sama liñ ko dul jàng lool tax na nit ñi xeet ko woyofal ko waaye fu mu jëmi nit mooy deew xol xol nag bu dee borom dootu dëgg waar dootu mën a jëm mukk ci lu koy texeel ndax suñ borom a koy wàññi te iblis a koy ëpp doole te yaa ak nosam waxoon naa tànk ci ñi nga xam ne seenu nos seytaan ne ko yor te kon waxtandikoo nuur mooy sax ci bàkkaar bañ a tuub te kon digal nañu nit ci muy fàttali ko aaya alquran yi nga xam ne dana taral mbir mi di fàttali ëllëg di fàttali ko xabaar yi nga xam ne jóge na ci yonent wala mu jóge ci gaañ yu baax ñi ngir ëllëg tey ragal loo nit nit war na sax sax fa fu mu toll amee carnet bu tuuti di ci bind yoo xam ne dana koy fàttali ëllëg ak di ko ragal loo ak di ko xiir ci topp bis bu xëyee njëkk koo xool ndax mu jëf jëf yoo xam ne ji ca la koy jëriñ la di ko faral a seet bu dee day def ay astaghfirullah wala astaghfirullah farlu ndax nit gannaaw day fexe ay pexe toujours ngir di wut lu koy jëriñ ci àdduna kon pexe pexe yoo xam ne yi dana la jëriñ ci àllaaxira ak di la musal moo gën a rawati kon di def ay pexe àdduna ay pexe rek ci nekk pexe day gën a bari gannaaw àdduna nag day gën a màgg di gën a wan nit ñi ab taaram di gën a nit ñi ay kéemaanam di leen gën a fabbi di leen gën a yóbbu ba nga xam ne nit dana dem ba bu genn wàllam deewoon ndax genn wàll ga ca des jajji mukk nga xam ne nit xër na xër boo xam ne ni ma ko waxee woon ci beneen conférence sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama bu amoon ñaari xuri wurus itam yu fees dell itam dana bu ko ñetteel ndax doomu aadama dara jontu biiram bi lu dul suuf mu dee rek ni suul ko soxla ma gëtam di taxawee loolu yëpp bu amee nit ki kon war na itam ci wàllu allah salaam mu indi geneenu ñaw ak geneenu farlu ak yeneen pexe yi muy fexe ngir mucc ci bon boni adduna yi ak teq teq yi ngir itam fexe ak texe boo xam ne ëllëg da koy dikkal su fekkoon ne kenn ku nekk sax farlu nga ci bi lay musal ëllëg farlu nga ci jub kon société bi moom kenn du sonn ci yar tribunal dootu am police dana noppalu gendarmerie noppalu te it nit ñi daan am kon pexe adduna ak àllaaxira te kenn ku nekk dana la wóor ne kenn dootu la nag kenn du doo tëdd mukk amee alal ragal ku ñëw fekk la fa rey la ngir sa alal jooju jël ko kon loolu moo tax wattandiku ci cër yooyu ñu dénk te Ahmadou Bamba radiyallahu anhu nee na wa kullu udwin qad asayta abada biha biha tadkhulu baba abada ci juróom ñaari cër yooyu ñu xam ne suñu borom daf na ko dénk te nañ ko seet ci ëllëg benn cër bu ci nekk dafa jàkkaarloo bunt benn bunt ci safara ndax safara juróom-ñaari bunt la nee ñu àjjana mooy juróom-ñetti bunt bépp cër boo ci moyee ba mu waral sax texee bi te bunt ba mu jàkkaarloo ëllëg ngay tàbbee safara laa qadar laahu wala sama ñi nga xam ne noonu lañ wax ne doomu aadama li sabab ak texee deem benn muy topp bànneex wala muy topp xol maanaam topp mer bu fekkee ne melaw mer moo ko muur xolam ba waral ak texee dem bu keroogee buy dekk di dem safara melaw xaj bu met boobu di gëddee lay am bu fekkee ne topp ba nga waral melaw mbaam ko maanaam xinziir moom lay dekkee moom lay duggee safara ndax jëmm ji ñu doon jëmm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tedd na ba kenn du ko duggee safara kon nag ci xeex ak bakkan da nga jàll ay diggante yu bari ndax bakkan ni ngay tàmbalee di def lu wuuteeg moom ngir bëgg a mucc wax boo ko jëlee ci wàccuwaay bi yóbbu ko ci beneen wàccuwaay am na ahlu tasawuf ni ñu ko tuddee muy ba tey juróom-ñaari yàqu wàccuwaay ndax an nafsu al amaaratu bisu yi mooy bakkan bu njëkk ki nga xam ne jéem a gula sàkku dara dafa toog rek du ci naa ñaari an nafsu lawaamatu moom lay am an nafsu al amaaratu bisu yi mooy bakkan bi nga xam ne daf lay digal rek lu bon lépp lu la neex nga xam ne daf lay alag rek ci la la jëmale moom lañ tuddee nafsul amaaratu boo xeexee ba jëlee ko ci melo woowu mun tuddee an nafsu lawaamatu nga xeex ba jëlee ko fa mu daal di jë tudd nafsul mulhamatu bu ci jógee tudd nafsul mutmainnatu bu ci jógee tudd nafsul raadiyatu bu ci jógee tudd nafsul mardiyatu bu ci jógee tudd nafsul kaamilatu nga xam ne tolluwaay yi yëpp bu ci nekk tur mu am am na melo woo xam ne moom lay meloo ci bu ko borom basira xoolee nga xam ne bu njëkk bi di nafsul amaaratu day am melawu bula ba ca topp day am melawu jaune bi ca topp day am melawu xonq bi ci topp nga xam ne dafay am melawu weex bi ci topp nga xam ne day wert bi ci topp day ñuul bi ci topp du am benn melo mooy an nafsul kaamilatu kon loolu lépp di loo xam ne nit ki dafa war a gar ba kanam ci ngir war a mucc di jaar ci jaar waaye yooyu suñu borom nee na ci alquran man kaana yuridu xarta laaxira najid lahu fi xarsihi wa man kaana yuridu xarta dunya nuutihi minhaa wa maa lahu fi laaxirati min nasiib képp koo xam ne da ngay bay sa tool ngir àllaaxira daan ko dollil mbay moomu fii ci àdduna te ëllëg daañu ko defal lëm bëgg képp koo xam ne kat nag àdduna dong la tax di bay maanaam lépp loo sonn ci àdduna sa yitte ci àdduna dong la jëm daan ko si jox ci àdduna lan ko bindaloon rek waaye àllaaxira amu ci benn cër mu ne waa man xaaf maqaam rabbi wa naa nafsa an la inna jannat hiya al ma'wa képp koo xam ne ragal nga sa taxawaayu borom ëllëg nga tere sa bopp sa bakkan bi nga tere ko bànneex bu ëllëgee sa kër gëñ la dëkkal mooy àjjana waaye koo xam ne kii dow nga nga fab sa àdduna teg sa kaw àllaaxira nga xam ne sa njëriñal àdduna nga jiital jaxim rek ngay dëkk ëllëg innama al amalu binniyaati jëf yi mu ngi baaxe di rawante ci yéene yi rek jaam bu nekk li nga yéene la suñu borom bi defal sellal nag mooy ngën ci yéen li nga ci yéene lépp looy jëf nañ ci sellal ngir yàlla rek wax dewum bul fexeel kenn ndax fexeel nit bokk na ci ñàkk sellal sa dund fexe moo xam ni du la gën ci moom waaye da nga koy fexe ngir sa njëriñal bopp wala ngir lor bopp bul fexe mukk itam ngir sa njëriñal bopp loo xam ne lii yeyoo woo ko nga xam ne buñ woon fexe ni rek doo ko am ba tey bu la léwul la lekk nga riba ndax nit waxtu wu ragalee yàlla rek dana bari lu mën a am te du ko am ndax ni nga xam ne noonu la sallallahu alayhi wa sallam ne adduna kat mooy kasu jullit kasu aji gëm kasu weesuwul li nga bëgg a def lépp doo ko mën a def dina Omar nee na ku gëm doo def li nga bëgg a def lépp nee na ah bu dul woon àllaaxira ba mbir yi dana demee neneen maanaam dëkku na wala neneen bari na li ñu koy def mu bàyyi ko ca ak lu mën a am te du ko am ak lu mën a jàmbat te du ko jàmbat te lépp ragal yàlla seet ëllëg moo tax du ko am du ko faj waaye képp koo xam ne faale woo fu la wërsëg bi jóge loo am jël bu ëllëgee yàlla fam lay tàbbal bu ko bu faaliwu ko fa gën a nekkee rek booy fexe daal te nga xam da ngaa mën a fexe fexeelal sa bakkan bi ba nax ko mooy jaam njëriñ fexeel ba ñuy wax takk wallaahi muy ragal yàlla nga am ko te war na ci bépp gëm aji gëm muy nangu dogalu yàlla di ca bépp waaye nag am na sew sew bu am foofu bu ñuy wax mooy yajibu riba bil qadaay la bil maqdi yi na nga bëgg ci dogal bi waaye di caa gis lu mu dogal rek nga bëgg ca loola sew sew la boo xam ne maanaam su yàlla dogalee nit ki mu moy wala mu naroon gis bi baax mënu ko mu xam ne dogal baax na kontaan ci ne yàlla la mu dogal moo ko soob waaye jëf ju jëf bon jooju mu jëf moom bu mu ko neex mooy yajibu arriba bil qadaa laa bil maqdi yi la ñu dogal nag bu dee lu gënal ci yow moom bu ca bëgg na nga bëgg nag ca dogal ba ci bopp diggante bu xaw a sew a nekk foofu looy bañ na nga ko bañ ngir yàlla looy bëgg bëgg ko ngir yàlla booy xaritoo nit xaritool ak moom ngir yàlla waaye bu muy ngir njëriñal adduna rek bu mu tax ndax kon day wane ne am na leneen loo fab teg ci kaw yàlla am na leneen lu la gënal yàlla alaaxira nag ka fa gën a texe ci mbir mooy ka fa gën a xam ne mbëggam bi mu bëgg yàlla moo gën a foor ñu ci def ndax bëggub yàlla boo xam ne bi yaram tàggoo naag roo roo mënu la bànneexu lu dul bëgg mu bëgg yàlla rek xol nag ñaari mbëgg mënu caa daje bëgg yàlla ak bëgg adduna ni nga xam ne safara ak ndox mënuñoo nekk ci lenn ndab ni nga xam ne butéel bi bu ci dara newul air bee koy seet maanaam ngelaw wax woo ci sotti ndox mi fu ndox ma yem rek fa ca des la air bi tàmbalee ba mu fees naka noonu kon fu bëgg àdduna ci yem rek yow fu bëgg yàlla yem ci yow rek la ca def ba xol bi fees bëgg àdduna ko mottali boo demee nag ba nga xam ne yàlla feesal na sa xol bépp bépp ba ci ba bàyyiwu ci benn place pour lenn mooy pexe gi gën a mag waxtu wooy dee yaa ngi jàkkaarloo yàlla jàkkaarloo ngërëmal yàlla neewoon naa ci beneen conférence ne waxtu wi nga xam ne ne dinañu bunti tuub ruuxam tàmbale na jóge ci cati baaraam yi tànkam ba mu commencé sedd ba tey loqi ko jëm kaw ruuxam daal tàmbalee gis dara dugg ko ump léppay leer ci moom li muy njëkk ci mooy ay jëfam jëf yu baax yi ak yu bon yi te jëf ji ci nekk day daal di làmbaaw ak xaqiqaam jëf yu rafet yi day amee ñolowur rafet rafet rafet ba jéggi day ba nga xam ne doo ko xam dara dugg bëgg dara dugg rafetaay yi loolu jëf yooyu jëf yu ñaaw yi day meloo meloo xam ne ci raglu ak ci ñaaw ak ci ñuul ak ci xasaw meloo xam ne gisati ko rek dugg safara sax ba noppi koy gisatee koy gënal gënal ko ne ngéeje li nga xam ne noonu laa ko misaale woon kon nit ki na mu gën a bëgg yàlla gën a bànneex mën a bànneexoo ci leer yàlla la texeen bi gën a mat loolu mooy ashawq ilallahi nga xam ne maanaam li ñuy wax namm ndax mel ne ko namm yàlla bëgg boobu yàlla bëgg yàlla ba nga xam ne tax na seetatoo sax digal ak tere yaa ngi seet rek bu dig bu terewul woon dara julliwul woon dara it li nga xam ne rek mooy gën gën a jëmale nit ci yàlla wala loo xam ne lii mooy buñ doon digle loolu digle loola rek moo day neex ni nga xam ne noonu la yonente bi sallallahu alayhi wasallam misaale sayyidina suhaybun ar-rumi ne ni'mal abdu suhaybun law lam yax law lam yaxasillah lam ya'tihi mu ne suhayb mooy jëmm ju baax bu ragal doon yàlla it du ko mooy ndax bëgg gi mu bëgg yàlla ba yàlla fees dell ak xolam ba gisatu dara dara dara dara tax na bu yàlla terewul woon dara it du ko mooy bu yàlla diglewul woon dara it lu neex yàlla rek ci lay nekk bu fekkee na nit ki dafa dem cheikhu murabbi boobu nu waxoon murabbi kenn ku ci nekk ak sak melo ñu seeti xoqal bu kaaw ñu sëñ waxe ne منهم مرب بأذكار وآيات منهم مراقب بحال وحدها أبدا منهم مرب مراقب بالإشارات kenn ku ci nekk ak na ngay faje sa malaat bi la indil waaye bépp waxtu boo xam ne nit ki turu yàlla la ñu fay ay ayibam ba moo koy war a àggale ci yàlla bu fekkee ne sëñ bi aarif la tur bu nekk am na tur bu ci ànd boo xam ne bu seytaane bëggee ñëw yàqal la mooy dàq seytaane bu fekkee ne nekk ci la ko jox matul loola wala yow yaa ko xobal sa bopp du ànd ak tur booba te booba yaa ngi ci xatar li nga xam ne noonu limaam xasaan yi waxee ne tur yàlla nga dogu rek jëm ci jàpp wenn tur di ko tudd muy xëcc sa xol nga bëgg a am secret yàlla yi bëgg a àgg ci sa boroom mu ne xatar la itam ndax benn nga alku ànd ak way alku yi wala nga mucc bokk ci buuri diine yi lay tax a mën a mucc bokk ci biir buuri diine yi nag mooy nga am koo xam ne kii moo lay xàllal yoon wi téye ci sa loxo doomaa damay dañoo rawante rawante gi ñu rawante fii ci àdduna nañ rawante ci àllaaxira ko raw ku nekk xam na ne da nga gis nit koo xam ne lu mu reere daf koy tëb du am fukki dërëm da gis nit koo xam ne ay milliards yi milliards yi milliards lay am am ay bateau am ay avion am ay auto cinéma noonu ñu rawante nañu rawante ci àllaaxira moo raw noonu nga xam ne itam noonu la am jaam boo xam ne mën na fekk jaam bu ñàkk ba amul dara mu may ko ci alal lu tax ñu di ko limaale ci ñuy woomal àllaaxira la rawe ndax alquran nee na wala laaxira akbaru darajaat yi wa akbaru tafdilan àllaaxira la daraja yi gën a ëppaatee te ci la gën a gën a la gën a lante da gën a ëppaatee loolu ku seet sa xel sax war koo xam ndax daañu wax ne mbindeef yëpp ñu ngi leen bind ngir jenn jëmm xanaa kon foofu la rawante mën a yem foofu la gënante mën a yem nee ñu mbindeef yëpp li suñu borom bind yëpp mi ngi ko bind ngir yoon ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ku ne xam ne ne gënante am na ki nga xam ne bëggul woon a moom ñu bind la duñ la bind foofu la rawante mën a yem naka noonu suñu borom jaam yi mu sàkk daganalal ñenn ak ñu mën a rey ñenn ak ngir jëriñoo ñi mooy bàyyi nii noonu ñoom a yem képp fa yàlla gën ginu leen gën ndax nuroo ginu nuroo yonente bi sallallahu alayhi wasallam nu di aw xeeram li nu nekk di nit te yonente bi sallallahu alayhi wasallam di nit tax doomu aadama suñu borom daganalal ko mu mun rey koo xam ne borom bakkan la ne moom di ko ngir rek jëriñal boppam di ko jëriñoo foofu itam la gën a lante mën a aw mënu koo weesu gis ngeen yonent yàlla noo alayhi salaatu wasalaam mas naa tax suñu borom far lim bindoon lépp gis ngeen yonent yàlla Moussa bi muy duggaat Palestine nga xam ne ñëpp téeméeri wàll yoo ngi fi suñu borom faat leen ñoom ñëpp ikraaman li Moussa ngir teral Moussa alayhi salaatu wasalaam naka noonu nga gis mbindeef yi kilifa yi yàlla bind fab ay jaam tofal ci seen kaw dal di conditionné seen texe ci gërëmal nga gis ne suñu borom tànn na Adama ak Noox aali Ibrahima ak aali Imraan ci mbindeef yëpp nga xam ne kon suñu borom dana gënale mu ne Mariama suñu borom ne tànn naa ko ala nisaay alima ne ci mboolem julliti doomu aadama yëpp.
muy xaw na daal dana kii buñ toppee conférence bi dana yéex rawatina bu fekkee ne am na ay laaj ñu gën koo gàttal kon waaye bokk na ci rafetu teggin dëkkaale bu rafet képp koo dëkkal na nga xam ne am nga àqi dëkkaale nga rafetal ko képp koo bokkal noonu koo dendal noonu da ngay jëf jëf ji rafet bokk na ci lii wane ne doomu aadama bi suñu borom yërëm na ko li ñu tuddee liinul jaani bi laynul jaani bi mooy nit ku lewet ku woyof lu mbiram nga xam ne ku nekk ñeme na ko boo amee soxla ci moom mën a ñëw wax loo ko sant mën ko koo def mu woyofal boppam moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne ne al muminu al xafiful xaaji bokk na ci bëggul maaruf yi fépp ko fekk foo mën a dimbalee nit wala ku aajo xeet li sa nga mën ko nga def ko
di joxe ñam bari na trop tuyaaba bari bari maslaha ak aajo boo daje nit ñi santaane nañ ko feebar nga di ko seeti bari na tuyaaba fekkee ne rawatina jullit la moo xam jullit la bu ra- bu baax wala faajir la maanaam faasiq la waaye jullit la rek naka noonu gumbi janaasa boo xam ne jullit la képp koo dendal nga rafetal seenum nekkuwaay bu dee jullit wala bu dee yéefar yépp képp koo xam ne mag na la nga wormaal ko rawatina bu dee jullit da ngay jéggale loo mën ku la tooñ am na am na lool solo fa kanamu yàlla ñaar ñoo fekk ñu dëngoo wala ñu jubóo di ko loo mën ci rafetal seen diggante jubali leen nga di ko def tabe itam bokk na ci melo yi nga xam ne melo yi nga xam ne suñu boroom sax def wax na ñu lim fukki nit ñoo xam ne ñii yàlla du leen lakk mukk ak lu ñu mën a def ku tabe bokk na ca naka noonu ku bari njëriñ lool njëriñ ci doomu aadama yi bokk na ca kon yooyu yëpp rafetal na ak njullit te waral waraloon nañ ko naka noonu samaaxat mooy yombal sa mbir ci jullit ñi tàmbali yiw wan na mer buñ la tooñee nga muñ ngir yàlla di jéggal nit ñi dana tax suñu borom jéggal la yërëm leen itam doonte sax ki nga xam ne kii safara yoyoon na ko yërmande dana tax ñu yërëm ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci kulli ji kat bi din rab din yar ahmad lépp lu am res bu tooy rek yërmande nga cër ku nekk gis na jigéen ji sàggan jooju nga xam ne dafa romboon xaj bu tiim benn seyaan teen yu gàtt yooyu mar di yàlkat tiim ko mënu ca naan mu daal di xotti musóor ga takk ca dàll wa daal di cay yoor génne ca ndox jox ko mu naan ba mu dee borom basira gis ko ci melo wu rafet ca àjjana mu laaj ko lan nga def ba texe mu ne ko xaj boobu ma yërëmoon daañu wax ni kenn ci ulama yi nga xam ne benn bis ba mu deewee borom baatin daf ko gis ne ko na nga def mu ne ko suñu borom jéggal na ma mu ne ko waaye ba ma daatan jéggal de nee na ma loo defee ni moo tax ma jéggal la lu ne wax naa ko ci jëf yoo xam ne jëfoon naa ko mu ne ma loolu taxul ba nga xamee ne jeexlu naa mu ne ma li tax ma jéggal la daal moo di benn bis yaa ngi doon bind muy bis bu tàng nga sëpp sa xalima gi weñ wu mar ba nga xam ne bu naanul woon dee mu tag ca xalima gi di naan daaji nga bañ a bind ndax bañ mu naaw nga bàyyi ko ba mu naan ba mandil boppam ba naaw nga soo commencé bind yërëm googu nga ko yërëmanu laa la yërëme tey naka noonu bokk na ci yi waral kon texe yërmande jooju le ak lépp lu watandiku foo mu bari ak déglu way yu bari ba jox ko saxol lépp ak wut xam lu lay jëriñ yooyu yëpp bokk na ci màndargam texe watandiku jëw ak fen ak nay watandiku néew njëriñ watandiku becc ndil nit watandiku fexe fexeel nit watandiku wor watandiku rambaaj watandiku fenqale ñaari nit ba kenn ku ci nekk amel sa morom leneen donte da nga ko déggal lu ñu ko wax nga xam ne boo ko waxee mu mu denc ci wala mu mere koy wala loo ko di wax naka noonu dagg ak bokk ñaaw jikko luy waral texee di la ni nga xam ne noonu la ko rëy di te warale naka noonu damu naka noonu puukare ak di dox doxiinu wane ni daal yow kenn nga naka noonu di yëkkati sa bopp teg ko ci kaw nit ñi naka noonu mbañeel boo dencal nit ab jullit ci sa biir xol ak kañaan itam noonu lay sori nit yàlla di ko jegeel safara naka noonu daw ak wutu noone njistal ak ñaaw njort itam ci nit ñi noonu la bone ñaaw njort rawatina jëw jëw moom ci xol sax dafa xaraam ndax mbootum xol kenn xam ko ku dul yàlla nit mën na jëf jëf joo xam ne mën nga koo taawile fukki taawil te lu ci nekk nangu na ko dañu wax nag ne bépp boo xamee ne bii gis nga nit jëf jëf joo xam ne mën nga koo taawil fukki taawil ñu ñaaw mënulu koo taawil taawil bu rafet lu dul benn rek war na nga taawil ko taawil bu rafet ba ci yu ñaawee kon wattu loo wattu loo nañu nit moroomam wattu sa moroom wattu sa boroom war na ndax nit ki la muy jëf ba mu koy jëf wala na muy ba mu koy mel xamuloo la ci biir xolam ndax àllaamul xuyub dong moo xam la ci biir xol yi kon waruloo ci keneen nga fas ci moom lu ñaaw lu dul boo demee ba mu leer la leer boo xam ne mënatu koo taawil boobaa nag sharia sant na la ci moom ay jëf jëf yoo xam ne da nga koy jëf sa digganteeg moom ngir laa diire ko na ngir dogoog moom ngir mere ko wan ko ne mu xam ne lu bon li muy def moo tax nga waccal wat ak di ko xas ak di wax ñeneen ñoo xam ne dañoo war a ànd ak moom te nga bañ ñu ànd ak moom mu wàll leen ci yooyu nga di leen wattandikuloo loolu lépp bokkul ci jëw loolu moom yoon maye na ko ndax bépp boo xamee ne gis nga nit jëf dara rek nga féetale ko fu ñaaw wala amuloo ci dara loo ko mën a birale ba mu xam ba mën a waat ne lii nii la e sa xol féetale ko fu ñaaw seytaan rek moo xam loolu sànni ko ci sa xol te seytaan ku ñu war a fen loola ndax faasiq la alquran nee na yaa ayyuha alladina amanu in jaakum faasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum naadimina bu leen faasiq indalee benn xabaar na ngeen seetax seen na ngeen teelu seetax seen xel bu leen dal ci kaw kenn ngiruk réer ngir topp loolu leen faasiq bi wax ndax kon boo demee waxtu woo demee ba gis jëf ja nam demee ak na wax na mbir ma demee da ngeen rëcc rëcc bu rëy te fekk jëf ja wéy naka noonu jëf yi tax suñu borom yërëm jaam ci ni ma yi ma waxoon yëpp boole na ci bari julli ci yonent allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim rawatina bisu ajjuma ndax sallallahu alayhi wa sallam fépp koo xamee ne nit jaa nit julli na ci moom am na malaayika mu toog ci boppam daf koy yëgal ne ko diw julli na ci yow bu ko defee ma daldi julli ci moom bu so yonante bi jullee ci moom suñu borom dana ànd ak malaayikaam julli ci moom benn yoon boo julli ci yonante bi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak suñu borom dana julli ci yow fukki yoon boo jullee ci yow fukki yoon mu julli ci yow téeméer boo jullee ci moom téeméer mu julli ci yow junni te kon sa yaram dana araam safara te nee ñu képp koo xam ne julli nga ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñetti fukki yoon suñu borom dana la jéggal bàkkaaru juróom-ñetti fukki at bañ ne sallallahu alayhi wa sallam nan la ñuy jullee ci yow mu ne da nga naan allahumma salli ala muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi mu ne ñaari am na ñeneen ñaari baat ñoo xam ne ñu woyof la ci lamiñ te diis nañu lool ci bu keroog gisee bu ñuy peese jëf yi te ñaari baat la ñoo xam ne yàlla sopp na leen lool mooy subhanallahi wa bi amdihi subhanallahi al azim jéggalu kon ak wax baat yooyu day far ay bàkkaar te sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne wéet nga fàttali ko yàlla ba jooy say bët yi nërangooñ ngir fàttali ko yàlla rek sa yaram dana araam safara jàng suratul mulki guddi bu nekk day tàqale nit mbugalum bàmmeel dana tax kenn du ko baal kenn du ko bàmmeel ci bàmmeel bi kenn du ko ci mbugal suratu duxaani képp koy jàng guddi gu nekk bis bu xëyee day mel na ko ndeyam jure woon ci ñàkk bàkkaar kon jàmbaar ci jëf am na solo suñu borom digle na itam kersa rus yàlla ci sa ay jëf rus ko foo toll ak lépp looy jëf dana waral texee di gu dëpp texee di texee gu dëppeeku goo xam ne dara du ko mën a dox ci diggante bi feebar nii sax dana dal nit bu dee jullit mu xam ne yàllaa ko ko teg muy kaafaara ci moom far bàkkaar bu mu amoon sëñ Tuubaa wax na ci masaariku dinaan ne géej sax dana jam nit xolam metti ci mu xam ne yàllaa ko ko teg mu far bàkkaaram bépp te suñu borom dëhal na yonante bi sallallahu alayhi wasallam ci yërmande ñeel xeetam yi loo xam ne jàpp nañ ne sax ne xeet bi du ko mat bu keroogee ci ñi ñuy yërëm wax na it ne benn jaam rek ci jaami suñu borom ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam dana ramm keroog bis pénc ba loo xam ne dana toll ne maanaam ku doon wax wala fatti couleur te suñu borom lépp lu mu dëhal doomu aadama dana ko matal te yërmandeem lu yaatu la làmb na nit ñëpp àdduna ak alaxira yowmal xiyaam sax bis pénc bi buñ ko dee waxtaane li muy tiis tiis am na jaam yoo xam ne suñu borom dana ko woyofalal ci ñoom ba nga xam ne julli ñeenti rakka wala ñaari rakka ko gën a woyof ci ñoom moo ko gën a diis ci moom te képp koo xam ne kii suñu borom tegoon na la balaa fii nga muñ ko yomal xiyaam bu ñu lay fay ka ñu jàmbaloon ci àdduna dana la ñee ba su sañoon yaramam bii ci àdduna ñu sisoo woon ko lépp ba mu def ay sagar ndax ñee la ndax ñooñu kenn du peese seen i jëf suñu borom daf leen di sottil rek seen i yiw ba kenn du xam ni mu toll mu ahlu balaa laysa lahum misaan wala seen seeru lahum diwaanu kon sallallahu alayhi wa sallam nee na texe ñeel na képp koo xam ne xamal nañ ko lislaam mu dugg ca te wërsëgam di loo xam ne dafa yem ci moom rek ci dundal ko amul jóor bu muy denc fii di ca def am sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne yàlla wërsëgal ne lu néew nga doyloo ko loo jëf lu mu tuut tuut suñu borom dana ko doyloo ci sa jëf ci rafet suñu borom yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na yomal xiyaamati suñu borom dana saxal ay jaam yoo xam ne sama xeet wi la bu ñu dekkee ay laaf ñu dal di naaw teggee foofu rek dem àjjana bu ñu demee àjjana xam ne dañoo jóge ci seeni bàmmeel dem àjjana bu ñu jaari fenn nam leen soobe ak fu mu leen soobe rek malaayika yi dañ leen waaw yéen ndax dem ngeen ci xisaab ba ñu ne waaw luy xisaab ñun daji suñu xisaab ñun daji suñu benn xisaab ñu malaayika yi naan leen waaw jéggi ngeen siraat lu ne luy siraat ñun de xamuñu luy siraat ñun de jéggiwuñu siraat gisuñu gisuñu li nuru siraat de ndax gis ngeen jaanama ñu ne ah ñun daal gisuñu jaanama malaayika yi ñee leen ba naan leen waaw yéen fu ngeen bokk ñu ne ah ñun de ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan bokk ñun ñun ñun ñun daal yéen daal ngir yàlla ak yonent bi rek sarax leen nu ngeen xamal nu lan ngeen doon jëfe lan la seen i jëf doonoon ci àdduna ñu ne nun de xanaa ñaar yi rek nun daal am na ñaari jëf ñoo xam ne ci lañu jote di maqaama ak di daraja ak di may ci yërmande yàlla ak ngëneelam ñu ne leen waaw ñaari ñaari xas la yooyu ñan la mu ne ñun daal waxtu dañ daan bu ñu wéete it daanu kertawoo yàlla daanu rus suñu borom ba duñ ko moy te it bu ñu joxee lu ne it ñu doyloo ko ca la mu sedd malaayka yi ne leen ew waaye yéen daal yéen daal yéen la yàlla defal dëgg dëgg